dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen a ñu xëyandoo yéen a kaay gii di réew mi quotidien enquête vox populi les échos ko quotidien yéen a kaay yëpp xëy dikk ci coronavirus jàngoro ji nga xam ne maanaam mooy lëmbaaje àdduna bi doore nag ca diwaanu China yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu Sénégal jamono ji nag daan nay am jàngoro ji di coronavirus maanaam kaa bu njëkk bi niki dem nag la ko ministre bi ñu dénk wàllum wér-gi-yaram gi daal di fësal ab tubaab moo ko fi daal di andi moom nag ca France la daal di jóge kaay gi mu ñu xamal lan ñu jamono ji nag am na juróomi réew ci déndu Afrique ñoo xam ne amee nañ ji nga xam ne maanaam mooy jàngoroy coronavirus journal bi mu ñu xamal lan ñu tubaab bi nga xam ne moo ko indi ci Sénégal moom nag am na jabar ba am ñaari doom doon dund ca Almadi ca France lay jugee ginnaaw bi mu ñëwee nag mu daal di gis nag yaramam tàng mu daal di dem nag ci bërëbu fajukaay ci la ko xool càmbar ko xam ne nag fièvre bi nga xam ne moom la amee ma ngi ci 39 degré ba pare nag ak buleem di metti teg ci boppam di metti ci boobu nag ci la daal di ñi nga xam ne ñoom la dénk wàllum wér-gu-yaram ci réew mi ci boobee nag ci la ñu ko daal di jël yéen kaay gi mu ñu xamal lañu Abdoulaye Diouf Sarr moom nag ni ki démb daal ginnaaw bi mu janoo ak taskatu xabaar yi wax na leen ne leen Sénégal am na cas bu njëkk jëm ci coronavirus waaye nag Sénégal dina jël matukaay yépp ba pare nag daal di dalal xelu Sénégalais yi yéen kaay groupe Promo Consulting gi mu ñuy xamal lañu jamono ji kay maanaam mën nañoo wax ne Sénégalais yi ñoo ngi ñi nga xamante ni daal ñoom la bokkaloon roplaan fii ci Sénégal maanaam di Air Sénégal ñooñu ñëpp nag maanaam seen i contact ñoo ngi koy wut nag ngir daal leen di woo xool ñooñu nag ba xam amuñu jàngoroy coronavirus waaw wala déet maanaam fépp foo xamante ni rek tubaab bi jaar na fa ñu ko daal di lëmbat journal bi mu di xëy di ñu xamal naa ñu soo moytuwulee nag am na nag ay événement religieux yoo xamante ni danañu ko daal di dàq lu ci mel ni màggalu poroxaan appelu laayeen bi ba ci daaka Medina Gunaas ba ci sax Kazu Rajab journal bi mu ñu xamal naa ñu Abdoulaye Diouf Sarr moom nee na lu jëm ci bésu nag dana daal di dem waxtaan ak kilifa diine yi laas yéene kaay mu ñu xamal nañu avion air Sénégal maanaam ci la nag tubaab bi duggoon waaye nag ñoo ngi daal di xool ana ñan lañ bokkaloon boobule avion ñi nga xamante nag ñooy waa OMS organisation mondiale de la santé ñoom jamono ji daal nañuy taxaw fas yéene jàppale Sénégal ci xeex bi enquête yéene kaay ñu fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag la mu xamle ne ne jàngoro ji daal Sénégal mën naa jàkkaarloo ak moom ba daal di ko jëlee waaye nag daal nay wax Sénégal yi ñu daal ànd ak dal ba pare nag daal di vigilant ba pare fonk samp li nga xam ne maanaam mooy cet gi yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamalaa ñu nag événement religieux yi maanaam bu ñu ko dàqee nag moom loole nag du bett kenn laas yéenekaay daal di xëy di ñu xamal naan ñu délégation bi nga xam ne bu Sénégal demoon ci salon international de Paris ñooñee nag dañu doon wax ne dañu leen a ber bi ñu dikkee ci Sénégal waaye nag loolee ndekke dara amusa ñoom Moussa Baldé bi ñu dikkee aéroport international Blaise Diagne tegoon nañ fa nag ay matukaay jëm ci wàllu wér gi yaram ne ñooñee nga xam ne ñoo salon international de l'agriculture jamono ji nag ñoo ngi leen di teg bët bu baax a baax yéen kaay gii di Les Échos mu ñu xamal ñu nag lépp loo xam ne jëm na ci wàllu masque ak gel yi nga xamante ni moom la ñuy désinfecté jamono ji amul ci réew mi libération yéen a kaay mu ñu xamal ñu ginnaaw kaa bu njëkk bi am na beneen kaa boo xamante ni nag ñoo ngi koy càmbar fii ak ñaari fan daal dinañu xam ba xam kookee nag dafa amee jàngoro yi coronavirus waaw wala déet maanaam fii ak 48 heures yéen a kaay gii ñu xamal ñu njiitu réew mi di président Macky Sall kaful réewul ci mbir mi ndax lu toll ci benn milliard yu fekk ñeenti téeméer ci ay millions daat na koy génnee ngir nag fas yéene jàmmaarloo ak li nga xam ne mooy jàngoroy coronavirus ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa Thierno Lo moom nag la mu xamle nee na jamono ji daal Sénégal dafa war a jël ay matukaayam maanaam daal di tëj frontières yi ba pare bañ joxe ay visa Abdoulaye Diouf Sarr ne moom am na xel mu dal ci jumtukaay yi nga xam ne Sénégal amee na ko nag ngir nag jàmmaarloo ak lii nga xamante ni maanaam mooy feebar bi Les Échos yéen a kaay bàyyi mbir moomee nag wax ci délégation bu Sénégal bi nga xam ne maanaam dajee woon na nag ak kuréel gii di waa MFDC nekk ca Casamance ca Italie la ñu dajee woon ngir nag waxtaanee lu jëm ci wàllu jàmmi Casamance waa nag ñoom ñi ñu jàmbaaraamu tuuma mooy ñu nekk ci diggante bi ngir seen intérêt personnel la yéen a kaay gii di réew mi quotidien moom xëy waxaat ci université Assane Seck ba sa Ziguinchor étudiants yi nag ñoom daan nañ ñuy jàppante bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñooy takk der ya ni ki démba yéen a kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal laan ñu waa FES ginnaaw nag seen tournée bi bi ñu ko amalee ba pare ñoom nag daan nañuy wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la université di dund te loolu lépp nag état bu Sénégal ak ministre bi nga xamante ni moom lañ dénk njàng mu keew mi yéen a kaay gi di sunu làmb ñu fekk fa Balla Gaye numéro 2 moom nag ma ngi dànkaafu Modou Lo di ko jox ay avertissement di ko xamal naan ko daal Ama Baldé man na laa daan jël bu set wecc ndax ku daan tafaatin mënu fee bàyyi kenn